الله من كل كريم أكرمه waaw ah, salaamaaleykum mbokku internet ñi nga xamante ni ñu ngi seetaan Dakar Midi naa leen demee saa su ñu toppalee seen actualité bi nga xamante ne mooy màggal gi di def ay waxtaan yam ñu fi nga xamante ne mooy Daaray Kamil lépp lu am murid am ci bii la ko am kon nag bis bi noonu war nañ koo fonk fonk li ko Serigne Touba ni nga xam ne noonu la ko fonkee ba ba jox nu ci ndigal nu di ko fonkee noonu di ko sant noonu Serigne Touba nag dafa xam li nga xam ne lii moom la ab jaam wa war a warloo ci sant boroomam ci li ko xëyul gi ko suñu boroom defal ndax suñu borom moom lépp lu ñuy def rek sant ko sant ko rek lan man ak ñaanal ñaan ko moom lan mën a séq ak moom sant gi nag dafa rëy ci moom ba mu wax ne képp koo xam ne ki sant naa ko rek dana ko dolli la in sakkartum la azidannakum boo gisee màggal gi fii mu toll tey lim doon ak sant moo tax ndax at mu ne buñ ñëwee sant bu ci diwlin saa sama borom dana dolli ba ñëpp xam ne màggal gi dolli ko na ndax moo ko diggee woon te moom lu mu diggee rek mën na ko boo gisee màggal gi fi mu agsi cant gi ñu koy cant moo waral mu wax at mu at mu nekk dana yokk ndax suñu borom a ko wax la asi la in sakkatum di la asidannakum bu ngeen santee ma dolli waxtu wuñ santee rek mu dolli moo tax ndax damay wax ne nun ñi nga xam ne nii day daana na fekke màggal yi nga xam ne yii daana fi jiitu woon na fi ci sunu ndaw ay 1960 61 62 63 booba nun buñ mosaan ñëw màggal Touba mboolem liy màggal gi ci penc mi wër jumaa ji ci lay yem ñii passion fi la ñuy ne ñii bay ganaar ñii addis ñii lépp lu ñuy waa def rek ci penc mi wër jumaa ji la ñuy def bu bët setee màggal gi def tribune bi ci buntu kër Sëñ Fallu màggal gi jeex tey fii màggal gi toll jàpp na adduna bépp fi ñu toll amatul amatul kenn koo xam ne ki mën na ne mënumaa yëg du ma yëg màggal Tuubaa kon loolu cant gee ko andi booba booba dara amu ci daanaka waaye léegi si tey fa tabaarakallaa ahmatul na cant googu nag noonu lay doxe dara du ko moo tax boo gisee tey ren jii dara mënu koo fanq mooy suñ booma dana ko yokk ba ñu ba ñu xam ne màggal gi moo ëpp lu daaw ga ndax moo waxoon ne la in sakkatum la asiidannakum bu ngeen sante leen dolli kon nun sant war na noo góorgóorlu ci di sant di xam sarti sant itam loon la sant nu di ko defee ni ko sëriñ bi diglee ni mu ko bëggee nu di ko defee di ci bernde di ci lépp loo lu waay man def ko ci màggal gi ren bu ne bu soobee yàlla dana mën du ko ndax sëriñ Blaat mii nu foofu ndokk fi moom radiyallaahu anhu damay wax ne man euh, màggal gi ci moom laa ko fonke ndax moom saa yoo xamante ni weeru màggal gi mas naa teru daanu na moom moom lépp lu mu amati ci àdduna bu màggal gi jàllee màggal ko ko fi waaye moom joxoon na ko màggal gi dara ko bàyyil màggal gi lu am rek bu bu màggal gi yëkkati dana ko yëkkati ko joxe ko ngir kon nu itam nu nun ñu topp ci moom it te di ko dong leen war a doxee noonu dong leen war a mooy sunu cant ci moom màggal gi damay wax ne boo gisee ne Eh, dolliku gi muy dolliku looloo ko waral muy muy cant gi waaw waaye Serigne Touba radiyallaahu moom min topp ci moom mu mu jiitu num xuus taxaw gém taxaw ci kanam boroomam kanam yontu bi kanam lislaam ci kanam noonu lislaam yi taxaw gëm fa dëgër këcc këcc këcc këcc ba dara mënu ko jaar fenn def loo ko lenn lu neexul borom wala mu def loo ko lenn lu bàyyi loo ko lenn lu lu ko borom digal noonu ñu topp ci moom it noonu lañ war mel ndax daa mel lu kenn mënul ndax sëñ bi dana wax ne daana wax ne sëñ Tuubaa sëñ am na lu kenn amut waaye dafa def lu kenn deful kon nun ñu topp ci moom itam dama leen buñ buñ euh, képp ku di murit di te sax murit dëggu bu ñu dajale woon ci kanam euh, euh, mboolem ñi fa mas a jaar ci ñu baax lambi ak mursul ak képp ku fa mas a baax ci yoonu yàlla bu ñu leen dajale woon fee ñu ne la andi sëriñ ñu dugal ko doo ko ruus doo ko ragal da nga sawar lool ñu fab sa sa sëñ dugal ko ci lëmb yi ak mursaliin moom nag mu wax ne man de musuma def lu rusloo sama taalibe kon bëgguma sama benn taalibe def lu ma rusloo kon nu itam war na defar suñuy jukko defar suñuy xol defar suñuy su suñu taalibe ba toppee ci moom na nga xam ne mii moom noonu la toppee ci yàlla noonu la toppe ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nu doxe noonu waxe noonu sante noonu bu nu ko santee danañ dolli ko ni mu dolli ko nu nu ko nu ko nu di ko dolli ko kon war na noo sant ndax eh, cant gi dafa wax ne eh, képp koo xam ne ki sa mbig sa mbig de war na nga may ki sant la yàlla ci eh, bu la bis bi fekkate ci suuf bis bi nag nawul gëléem xeebul ganaar waaye nanguwul dugg tong-tong hmm. da ngay tuur deret rek loolu nag buñ ko buñ ko toppee defee ko na nga xam ne kii noonu la ko sëriñ bi diglee nu di ko ne defee di ko ni waxee liñ bëgg ci moom danañ ko am tey ak ëllëg te buñ ko amee rek suñu aju dana faju tey kon nag loolu war nañ cee def suñu jom war nañ cee def suñu suñuy alal suñuy xel suñuy doole suñu lépp war na ko def ci fas yéene sant yàlla ni nga xam ne noonu la suñu borom jàppee ak cant yonent bi sëriñ Tuubaa jàppee ko ak cant noonu lañ ko war mooy imtisaalu imtisaalu awaamir wa wajtinaabu nawaahyi topp ndigal yi suñu borom bàyyi tereem yi tuub li ko ci defoon wéer ko ci sëñ tubaa nag ndax sëñ tubaa moom bu ñeerooy sëñ tubaa dañuy am ñoo xam ne dañuy jàpp ne kat da ngaa war a dem ab taarif ab madaaxib wala wala jës bu wala déedéet sëñ tubaa la mat a def def na ko lan mënutul mënulul suñu bopp lu nekk defal nu ko kon lim laaj ci noonu mooy nan nan defar jukko yi ak xol yi ak taalibe gi rek toppee ko ci moom loolu ndax moom euh, li sëñ bi daan wax ne <clears throat> euh, ñi àndoon buñ ñu ëpp ëppalee ci moom suñ jom moo des ndax moom de digganteem ak yonent yàlla Muhammad sallallahu mat na junniy at ak nangam te am na ci yonent mu Muhammad sallallahu alayhi wasallam loo xam ne lii mboolem saaba yi amuñu ko te loolu lépp ci jomam dong la kon ñuy nan fas suñ jom laxasaay suñ digg topp ci moom ni nga xam ne moom la toppee woon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy topp ndigal suñu boom bàyyi tamit tuub bi mu ci defoon boo leen nan topp ci yàlla si sëñ Tuubaa nag wala nan topp sëñ bi wala nan topp ñu daal di ñi ko nanata def daal di koy ñaawal daal ah ñun ñooñu ñun leen di toppee ñun leen di def leen di fekk na loolu dañ koy ñaawal rek waaye sëñ Tuubaa bi muy roy ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam su borom moo ko ne cëpp ci kanam bindeef yi melal ko ni nga xam ne jullit xàqan noonu la war a mel muy nag nu nit roy leen ci moom noo ngi roy ci moom ngir julli gi ngay julli koor gi ngay koor asaka ji ngay mboolem mi ngay def ci lislaam yaa ngi ko roy ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba noppi nag mënu maa roy sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ba mu ñëwee dafa yeesal euh, euh, l'islam bi rek topp loolu ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu mooy roy yàlla mooy bu roy yonent mooy roy sëñ Tuubaa kon nag góor góorgóorlu ci defar jukko yi defar taalibe gi te eh, eh, eh, moytu xew-xew yi yi nga xam ne dalay fàbbi jëmale ci loxo xam ne li bokkut ak la nga xam ne li moom mooy mooy ngërëmul yàlla mooy ngërëmul yonent bi Sëriñ Tuubaa kon nañ góorgóorlu ci taxaw takku fas yéene def li ñu digal bàyyi li ñu tere tuubal ci li ci defoon màggal gi nag moom alhamdulilahi rabbil alamin waaw àgg na foo xam ne fii ku ko xamutoo nit fi mu xam nga ko kon nag alhamdulilahi rabbil alamin te loolu lépp cant gee ko waral cant moom dañuy sant muy dolli rek du gën di sant mooy gën di sëñ Tuubaa wax na ne radiyallaahu bu ñu demee ba ëllëg yow mal xiyaam ba ba àjjana àjjana moom amul guddeeg bëccëg amul weer rek at ak nangam léegi amu ci benn waxtu rek la mu ne bu ñu demee ba àllëg ëllëg yow mal xiyaam day bañ nekk àjjana jooje lu àjjana neex neex neex neex neex de bis boo xamante ni bii bisu màggal Tuubaa gi dellusi na àjjana jëpp danañ xam ne bisu màggal gi dellusiwaat na ko mu dolli waat xéewal yi dolli nu tëbb ah, ba ba ñu xam ne ñëpp xam ne màggal ni ko waa fii ne fii ne ñëpp la jàpp amul kenn koo xam ne kii nee nga yugu mu màggal Tuubaa te bu yàggul te màggal te biñ ko tàmbalee yàggut te àgg na foo xam ne fii tey àdduna bépp ko jóg kon euh, nekk ci la nga war a nekk def la nga war def fas sun jom fas sun ngóor lu nu war la suñ digg ak Sëñ Tuubaa rek yàlla anu roy Sëñ Tuubaa te bañ a roy kenn ku dul moom luñ ñu indil ko seet ci lii mbir sëñ Tuubaa bu fekkee sëñ Tuubaa waxoon na ko wala defoon na ko loolu suñu yëfa su ko defutoon waxu koon su yoon nekku ca asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu allahu min kulli karimin akram